tey jii bi ma jëndee léegi dafa am benn communiqué bi nga xam ne coalition Yewwi ñoo ko bind ci biir communiqué bi nee nañu dañuy reporter seen marche du 3 avril lu tax loolu nee na dañu am ay échange dañuy discuter maanaam waxtaan ak force ak gradé yi nekk ci force de défense et de sécurité suñu armee armée républicaine la suñu armee mosul def coup d'état suñu armee karange réew mi lay toppatoo suñu armee day défendre intégrité territoriale loolu lu tax loolu parce que suñu constitution suñu charte dañ ci bind que président de la république mooy chef suprême des armées te ñoom lu ñu wone ba léegi mooy loyauté ci président de la république te seen liggéey ñu ngi koy def ak professionnalisme seen liggéey ñu ngi koy def ak sérieux war ñu leen dugal ci politique partisane ndax loolu du seen activité activité politique loolu bokkul ci seen mission lu nekk seen mission mooy di défendre intégrité territoriale ci ñu réew fexe jàmm am ci dëkk bi te xam ngeen jàmm dafa am solo kon nag foofu laa yem di leen wax ne suñuy décider reporter seen marche nañu wax leneen mais armée sénégalaise bokku ci